ñun nag dañoo am lu ñu naqari lu ñu met chaque jour ñu toog fii bus yi di ñu romb ci tali te yëpp ay doomu yoo xam ne dañu jóge ci àll bi vingt cinq personnes yi nga xam ne jël nañ leen nag récemment moo nekk lu ñu metti ndax domaine yéen leen jëlee étudiants yi nekk fi mën nañ koo def te recrutement interne dafa bëgg bis boo koy def da ngay jëkkee ci yi dëkk bi bu fekkante ne li ngay soxla am na fi nga bala ngaa dem ngay seeti faneen ñu bëgg leen xam leen mémorandum ngeen gis moom leen jëkk a bind biñ ko ko joxee dafa lànk wax nag de manière claire mu ne lan moom nekkul fi askan wi comme que nekkul fi askan wi nag ñun dinañ wax ba suñ kàddu fu mën a yem ari xam ne ci dëkk bi lañ dëkk ñi fi et pour preuve concrète nous avons la liste avec nous 72 heures lañ may dinañ wàcc ci terrain bi dinañ ci dem ba jeex tàkk nous voudrons le plus vite possible qu'il la restauration de la commission de présélection qui est par ailleurs dirigée par le sous-préfet qui a